ba muy xew Balla xewul duñ koy xam xamuñu Balla kon su amee grandeur am doom tudde ko Omar Sakho Balla Gaye dañuy wax liiru ñun ñëpp ñoo bokk sëñ Touba di wax ni lii ak defar la adduna da ngay defar tey liiru jaan liñ ko joxe monument Guédiawaye mate na ko te dafay ànd ak suma xarit muy jëy seen ak Abdoulahat njaay te du soppeeku maa ngi ñaan yàlla wéral la. Balla Balla mi mu ko tuddee nag. bi mu ñëwee bu ko neexoon day toog barab. boo xoolee Balla. di ngay xam ne nit nit nit nit li ñuy wax ci baatin nit bu suñu borom am lu mu def ci moom la. yàlla seede na ko ak yonent bi xam nga lu tax max la loolu. Balla du xool nit jàkkaarloo ak moom. Balla waru woon nekk mbër. ndax lu réer ci kanam xool ci ab xol. Balla yal na ko yàlla teg loxo yal na ko yàlla génn ci xat-xat yi mu nekk te buñ ko ñaanee suñu borom dina ko a a defal jàmm mais da tey wax papis sa waay la parce que yaakaar naa tooñante bi kaf gi fo bi ree bi mu mel ni tey liiru liiru na beneen paa tey macha allah li liiru def tey noo ko gisa yow rafetlu ko kontaan ko liiru moom ku nekk xam na ne bu weesoow li muy def nii ñëpp xam nañ ne xol bi dara nekk wallaahi lazim bu ñu ànd ak ku soxor ñu ànd ak kuy ñaan waxatuma laa ñu déplacé wu parcelle xam nga ba fii di ko ñaanal yàlla moo njabootam ak soxnaam ak tout tànk bi soog a gan kii soog a gën a si yàlla suñu borom def ko mag diine ak lislaam ah. sàmm ko aar ko ba mu teral ko incha allah kii soxna moo ko bëgg waaw moo tax xam man maa ma bëgg sama soxna da ko bëgg maa ma bëgg mënu ma dara xam di ko ñaanal jàmm yàlla sàmm ko aar ko ba bis bi doomam bi def ma koy fay incha allah incha allah ci barke mu jël tudde ko Balla Gaye ah, loolu warul boo xoolee Balla Gaye xool bu ko neexul sax nga jot jikkoom ah, donc doom bi dañuy def lu dul rafetlu ko maa ngi nuyu yàlla xale bi màgg ba teral ba teral turandoo ci barke Seydina ana kim ah, mi ngi fi loolu du yàqu a loolu mi ngi fi du yàqu ba léegi dama koy def ñaareel incha allah waaw ah. <laughs> ah. waaw kontaan ci Papis parce que Papis bu ñëwee fii ñëwal liiru ñun la ñëwal quoi waaw mu nekk sport war dafa war a boole warul xaajale waaw Papis nekk nit koo xamante ni nit ku nite la nit ku nit ku xam boppam sax am lu ma la baa nit ku nit ku nite daal parce que loolu mooy àdduna tey jii mënoon na jàpp affaire affaire adversaire kon du fi jaar waa ñi ngi koy ñaanal nag lépp loo xamante ni ragal na ko yàlla na ko suñu borom dàqal di ko wax àdduna nii la quoi sport bu boolewul waru tàggal noonu la demee ok